bismillah ikfini adar ya allah sali baqa abi بفيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له fii ci kër Cheikh Modou Bachir Mbacké gi nekkee ci Touba Darou Minane fi la ñu waajee ànd ak xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir ngir fas yéene dem ca Ndakaaru ngir waajal inauguration jumaay ji naan mu war a doon le 27 septembre 2019 war a dëppook ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru muharram atum 1441 ginnaaw gàddaayuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag biñ xëyee jël nañ mboolem dispositif bi ngir organiser li nga xam ne moom moo di convoi bi ànd kook ñi nga xam ne ñoo di takk der yi lépp yemb ki nga xam ne moo di Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir génn ki nga xam ne moo di sëriñ Moussa Nawel ànd ak moom ba sëriñ bi dugg ci oto bi ci lañ def benn convoi bàyyeekoo Touba Mbacké daal di jubali Ndakaaru bi ود منك يا الله قد استسر بيا يا قدوس متليا عني وعن كرادي تدار يا الله نفسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي إن منك يا الله أنت سلام لانسي سلام تكن لي من ويا بنفسي بطيب منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وعبلي الأمن في الدارين يا الله وبالمؤمن لست أبسترايك ما خبيت سرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز العزيز أطيب إيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إماك الجبار دون لقم كل انقضاء بنفسي لاخترت يا الله عجبت لي إنك الجبار دون الإنقاذ كل الإداء بنفسي لاخترت يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل في laataay convoi bi di génn Touba fépp foo xam ne jaar nañ fa ñi nga xam ne ñoo di askan wi génn nañ fësal seen ak mbégte xam ne ànd nañoo ak Cheikh Maodul Mountakha Mbacké Bachir liggéey bu am solo bi nga xam ne moom lay defal Serigne Touba. loole feeñ ci xar kanamu mbooleem taalibe yi nga xam ne romb nañ leen ci biir dëkk bi. li جمعت يا الله أتى المساور قل للنبي بسارا وساورا ليادو المكر يا الله غفرت لي كل سن بالغاد أتيت بي لزاد بسكريا يا رب يا الله خلقت لي كل سن بالخط أتيت به نسأل بسكريا يا خضار يا الله خلقت لي ربيع دعي بلا سبب مني عمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سوء lan baa xamaas alaate falaa ko sukk riyaayaat wa aabu xeelam li xuut asmaan alaj yaa man loo umuure wa xuut li risaayaat rasaaxu xeelam فتات لي كل بعد بن كنت ذات آه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 دارين يا الله قبلت يا قافل أنا ألي وما لو لخير نهري بقفل منك يا الله رواك يا رافع دارين مرتبته بلا انقطاع بفضل منك يا الله ولا ترى دار مرتباتي بلا انقطاع بفضل منك يا الله رواك يا رافي والدار مرتباتي بلا انقفال بفضل منك يا الله أنت علمي ثلاثي لا ستعي ستعي خلال واحد بل فيك يا الله أنت المسل لاسي سلالي ستي الإنس والجن seytaanu yaa Allaahu anta samiu laasi naajitu samaanan wa bil masaaraati li xat jot te yàlla. bi ñu génnee ci dëkk bi rek lañ jël autoroute Ila Touba bi bi ñëpp àndandoo doon benn ci njiitalul Serigne Moussa Nawel mi nga xam ne mooy jëwriñu Serigne bi ànd kooku mboolem kilifa yi. ñu àndandoo jubali fi nga xam ne moom moo di ndakaaru baaxi bi kaw mi asa bi ma qaaba min busraaka ya allah alaata ya adlu daayi bi xayri qaas wala lilaay di wajin qad kunta ya allah أزالتي فلاسي قد قدت لي أبدا لطفا أجيبا ياسي ذو الفكرة يا الله أنت الخبير لاسي آية خمرته وخدت لي من كائل ما الغيب يا الله أنت العليم لاسي صحصح أتت جملة ما لم ترل أمدي لخير دهر يا الله أتى يسيب لاسي بال نسامته لخوت فلن أسي من منك يا الله الله لاسي لقد طلبت مغفرة معك يا برادي عنك يا الله أجاز دور لاسي كلي لديك ريدا ولي سكرت جمي أسه يا الله أجاز لاسي أحليت لي أبدا بخير مكر ودين على التحيا الله أنا الكبير لاسي بانت كبارة lii ci yoon wi nag mbooleem péage yi nga xam ni jaar nañ fa convoi bi amuñ benn jafe-jafe ndax liggéey bu am solo boo xamante ni benn taalibe buñ naan bëgg Bàmba moo ko taxawu ñëw ba ci kër Serigne Bassirou ga ngir fexe lijjanti lu nu mel ba oto yi suñu agsee ci péage yi duñ fa yàgg loole nag sëriñ bi sant na ci bu baax ba bi fi agsee jot na leen ñaanal تفسيره يا الله أنت رقيب لسي بعد صيانته كلي كليتي عن سوى رلوانه يا الله أنت المجيب لسي قعدا بخيرا إجابة من كلي لاخترت يا الله وإنك الواسع الباغي ولي أبدا توسئة بالإبق يا الله أنت الأكيم الذي أبلغتني لسوى مزائني وما أو تسوء يا الله أنت الودود الذي قاد المواد تنور ربي سرمدا بريلا والقرب يا الله عسى المجيد لاسي بان مجادته وخدت لي منك مجدا فاخ يا الله وإنك البعيس المقيم بلا درا أعطيتني جملة الأقدار يا الله أنت سيد الأنسين هذا سعادة لبثرائك من نساك يا الله يا خلاص البيئة قرام جملة ما لم تر لي مطلقا بالفضل يا الله يا قليب أبي قلبا وجملة ما لم ترللي مطلقا بالفضل يا الله أنت الوكيل ناسي قد اكتفيت بي في الدفء والجلبية فالخلق يا الله في الدفع والجلبية سوق الخيال في الدفع والجلبية سوق الخيال في الدفع والجلبية سوق الخيال في الدفع والجلبية سوق الخيال أنت الوكيل الذي قد اكتفيت به في الدفع والجلب يا ذا الخلق يا الله أنت القوي الذي خويتني بردا في سر والجني يا ذا الأمر يا الله أنت المتين لاسي قد كنت لي بمنن ولا توجه بمكروه أحيا الله أنت الولي لاسي لا أتقي بدلا بي ولي كنت بالتعميل يا الله أنت الأميد لاسي أنت الأميد لاسي وجعت لي نعما بلا قرور وقير المكر يا الله أنت الولي لاسي لا أتقي بدالا بي ولي كنت بالتعمير يا الله أنت الأميد لاسي وجعلت لي نعما بلا قرور وخير المكر يا الله يا موسي الخلق والأسياء جملتي تليتني دراما أتيت يا الله يا مبدع الخلق يا من لا تواجهني ما لا أحب مناديت عنك يا الله يا مبدع الخلق يا من لا تواجهني ما لا أحب راديت عنك يا الله مريد مدى أو للخط لي كراما في كل سهر ويوم فيك يا الله محيي بخير آيات جبت لي أبدا فلا تسري بصف noonu lañu àndandoo ba ni agsee fi nga xam ne moo di ci dakaar ci rond point Patte mbooloo mi tàmbalee kenn ku ci nekk di fësal sa mbégte waaye di ko wane ci li nga xamante nii moom nga yore moo xam oto la wala moto wala nga nekk sa kër sax ñi nga xam ne dañuy taxaw seen balkon yi loolee lépp ngir wan seen ak mbégte ci Serigne Mountakha Mbacké Bachir mi nga xam ne mooy doon ganuk ndakaaru waaye di waajal inauguration Massalikul Jinaan مني يخل دون سخط منك يا الله قال حق تعالي ما كنت أنبو بخير كسب إلى الجنات يا الله خير مخط قتال ما كنت أعلم بخير كسب إلى الجنات يا الله أرسلت لي واجد الأسمان دونا لك الوجود الثلاثي لبان يا الله يا ماجد علي دارين متليم بخير كبر وأد بالرب يا الله يا وايد علي دارين منفردا ما المنى بآسي سن منك يا الله يا واحد اليد دارين منفردا bi ñu agsee ba ci pont aan bi ci EMG fa la mbooloo mu takk lool doon xaal sëriñ bi ngir fas yéene ànd ak moom dem ca Masaalikul Jinaan foofu sax sëñ bi jot na faa jaar ci ki nga xam ne moomoo di Mbaye Guèye ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni defal na ko sëriñ Touba di salaat kër gi nga xam ne mooy kër sëriñ tubaa gi nekkee ci kolobaan jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëfe xaadimu rasool jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëfe xaadimu rasool cheikh bamba yaay sunu assurance bamba say ndimbal raw ay finance sëñ bamba yow la jox sunu confiance jaajëfati xaadimu rasool am la moo gën am ay licence bamba weddi laa doy na ñàkk chance sëñ bamba moroom doo concurrence mbërum yàllay xaadim rasool wuy si laanu gënal audience bamba donte day palais présidence sëñ bamba Côte walla bu France yaa nu gënal xaadim rasool cheikh bamba moom no violence bamba la woote di jëf ne silence sëñ bamba moo tax murit amul tendance nañu sant xaadim ginnaaw loolu nag la sëriñ bi ànd ak sëriñ Mbàkke yu fay mu jiite convoi bi ñoom ñëpp ñu àndandoog taalibe yi ñu dar ñi nga xam ne ñoom ñoo di woto yi ñu jubali fi nga xam ne moom moo di masaalikul jinaan ndax sëriñ bi fa la war a jaar visité ko laata muy dem ci kër sëriñ Touba gi nga xam ne moo nekkee ci kolobaan sag wàllu raw na ambulance bamba njaare ma doonoon sa résidence surveillé ci xaadim rasool tubaab yi ñoom dañ la daan menace. bamba buur yi fi ne daan la offense. sëñ bamba yore wuloo woon benn défense. budul xaadim rasool. gaa basam benn distance. tubaab ya def nañ fa séquence. ñoom ñëpp toog di. assistance ngir bëgg lor xaadim rasool cay sëriñ Touba grand basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp di assistance ngir bëggal Xaadim Rasuul lii rekk doy na prudence bamba seen yéene mooy xañ la cadence sëñ bamba océan bële ku ñu fa relance ca gabaw nga xam ne doo Xaadim Rasuul yoneen bi mooy sa référence bamba amoo defet yow bay laaj revanche sëñ santati nañ la sa souciance naan jërëjëf xaadim rasool seex bamba yaay suñ confidence bamba murito raw na alliance Serigne Bamba ku woote gis présence ummanti doon xaadim rasool say kër mooy suñuy agence. bamba say xasidaay suñ opulence. sëñ bamba. màggal la wootee du ambiance. borom safar xamuñu sa morom xaadim rasool yaay sunu autosuffisance bamba yow yaa jar woote conférence sëriñ toog naan day patience ngir bamba mooy doon nay rasool ngir xut buy yaa caas ak bamba nga leen rawoon yaay croyance sëñ Bamba sa mbir dee xel mënu ko science yaa yéeme yow xaadimu rasool jërëjëf sëriñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba jaajëfe xaadimu rasool jërëjëf sëriñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba jaajëfee xaadimu rasool. Cheikh Bamba yaay sunu assurance. Bamba. say ndimbal raw ay finance. sëñ Bamba. yow la nu jox sunu confiance. jaajëfati xaadimu rasool. am la moo gën am ay licence bamba weddi laa doy na ñàkk chance sëñ bamba amoo moroom doo concurrence mbërum yàllay xaadim rasool wuy si laa nu gënal audience bamba donte day palais présidence sëñ Gabon walla bu France sëriñ bi bi mu agsee ci masaalikul jinaan ànd na kilifa yi muy sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir ak mbooleem kilifa yi nga xam ne fekk na leen fi ñu ànd daal di dugg ci biir visiter li nga xam ne moo di liggéeyub jumaa ji muy nemeek gu yaatu goo xamante ni daanaka sëriñ bi def na fa waxtu lépp rek ngir ñu leeralal ko li nga xam ne moom moo jëmoon ci liggéeyub jumaa ji am na sax discours bu am solo boo xam ne sëriñ bi waroon na koo def ci masaalikul jinaan waaye loole dafa mujj gi mu dénk ko sëriñ Basiiru Mbàkke Abdul Xaadir mu war koo def ci Masaalikul Jinaan ci alxamis ji à de 16 heures. cheikh bamba moom non violence. bamba la woote di jëf ne silence. moo tax murit amul tendance. nañu sant Xaadimu Rasuul. sag wàllu raw na ambulance. bamba sag dégg raw na fréquence. njaare ma doonoon sa résidence. surveiller cey xaadim rasool tubaab yi ñoom dañ la daan menace bamba buur yi fi ne woon daan la offense sëñ bamba yorewuloo woon benn défense budul yoneen xaadim rasool yaa basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor xaadim rasool cay ginnaaw bi ñu bàyyeekoo fii ci masaalikul jinaan ci la mbooloo mi àndaat ak cortège sëriñ bi ñu jubali kër sëriñ tubaa gi nga xamante ni moo nekkee ci Colobane fi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir fi la fas yéene dal di resevoir mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo fiy ñëw ak daayira yi ci diirub ngan gi nga xam ne mi ngi koy amal fii ci ndakaaru ci bërëb bi nag am na mbooloo mu takk lool mu ko fi doon xaar waaye it ay xasida teeru ko fi ak njàngum waa xisbu tarxiya ñoom ñëpp toog di assistance asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir xalif général ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal mboolem kilifa yëpp mbokk yi tey dimanche 22 septembre 2019 dëppook ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru tamxarit atum 1441 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi fii ci Ndakaaru ci préparation inauguration Massalikul Jinaan xalif général des Mourides mu Mountakha Mbacké Bachir ñëw fi ànd ak kilifa yu takk lool ànd ak mbooloo mu takk lool ànd ak i ngir fas yéene euh, déroulé li nga xam ne moom moo di programme bi jëm ci inauguration Massalik ñu ngi bàyyi ko ci Touba Mbacké ci Daarul nan daanaka bi fukki waxtu suba jotee rek muy 10 heures àndandoo def benn convoi jël fi nga xam ne moo di corniche bi waaye laata ñuy génn Touba ñi nga xam ne ñoo di euh, taalibe yi fépp xam ne romb nañ fa ci dëkk bi rek taalibe yi génn nañ fësal seen mbégte euh, waaye tamit wane ne ñoom ñi nga ànd ak sëriñ bi li nga xam ne moom lay fas yéene inauguré muy jumaay Massalikul Jinaan waaye noonu lañ ko ba jël autoroute Ila Touba bi euh, waaye it ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der liggéey ci liggéey bu am solo ndax fépp foo xam ne agsi nañ fa rek ubbi nañ euh, barrage yi ci euh, zone de péage yi nga xam ne cortège bi dañ leen a bàyyi ñu jàll loolu nekk loo xam ne lu am solo la waaye noonu lañ ko ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa gendarmerie ak police ñu escorté convoi bi ba ñu agsee fi nga xam ne moo di ci Dakar ci pont wu bi rek ci EMG foofu lañ wàccee ki nga xam ne moo di Serigne Mbacke yu fay kilifa yi ñëw teeru euh, Serigne Mountakha Mbacké Bachir euh, àndandoog euh, convoi bi mbokk taalibe yi ñu àndandoo dugg Castor mu nekk mbooloo mu takk lool lool lool lool lool for sànni mbattu mu takk ndax kenn ku ci nekk génne fësal sa mbégte waaye ànd ak Serigne bi waaye wane ne li nga xam ne moom moo di inauguration Massalikul Jinaan ndam la boo xam ne Serigne Touba am na ko ci kaw nasaraan si ginnaaw nekk goo xam ne Serigne Touba nekkoon na ko fii ci ndakaaru bi muy dem ci yoonu géej gi mu dundoo lu métti métti métti lool waaye tey jii mu nekk bésu mbégte ba tax na taalibe yi kenn ku ci nekk loolu la fësal mbokk yi ñu ànd ak euh, ñi nga xam ñoo di taalibe jaar euh, Castor jaar HLM continuer ba ni ñu agsee ci Colobane ci Masalikul sëriñ bi daal di dugg ci biir ànd ak kilifa yi sëriñ Mbacke yu fay ak sëriñ Bassirou Mbacke Abdou Khadir ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor liggéey bi biñ duggee ci biir nag sëriñ bi visité na Massalikul Jinaan ni nga xam ne noon lañ ko waxee woon ci programme bi ginnaaw visite boo xam ne yàgg na lool ndax daanaka def na fa waxtu bi ma génnee nag ci la jubal si ñëw fii nga xam ne moom moo di kër Serigne Touba gi nga xam ne moo nekk ci Colobane te sëriñ bi fas yéene fee nekk fii ak euh, inauguration Massalikul Jinaan sëriñ bi nag bi mu agsee fekk na fi tamit mbooloo mu takk lool ñu ko doon xaar waaye Euh, njàng mu am solo waaye it takk der yi takk lool ñoom it jël dispositif bu am solo ànd kook waa croix rouge ak ñi nga xam ne ñoo di service de santé kenn ku ci nekk di liggéey liggéey bu am solo ngir mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo fi dajee noonee la sëriñ bi accès ànd kook sëriñ musa naaweel mi nga xam ne mooy jëriñu sëriñ bi ak mboolem kilifa yi nga xam ne jege nañ sëriñ bi daal di doo def benn euh, euh, convoi wala doo doon benn ba ni nga xam ne noonu la oto sëriñ bi duggee fi nga xam ne moom moo di ci kër sëriñ Touba gi nekkee ci Colobane fi nga xam ne fi la sëriñ bi nekk fas yéene fee recevoir yi recevoir fii délégation yi ba keroog ñu inauguré Massalikul Jinaan jërëjëf sëriñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba jaajëf fey xaadimu rasool jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëf fey xaadimu rasool cheikh bamba yaay sunu assurance bamba say ndimbal raw ay finance sëriñ bamba yow la jox sunu confiance jaajëf fey xaadimu taalibe sëñ bi la waaw ndax lii moom daanaka la ñuy mën a wax rek mooy dafa bokkoon ci li sëñ Tuubaa ñaanoon muy jumaam ji tey nag maanaam ndamum jul yëpp la ndam la ndam la maanaam dañ sëñ Tuubaa moo fi ñëw sëñ Tuubaa mi fi ñëw nag wax dëgg yàlla maanaam ñun ñii nga xamante ne tey suñu péete mooy ndakaaru fii ñu féete maanaam sakk la suñu ñëpp waaw ñu ngi fi ñu ngi dund loo xam ne mësuñu ko dund moom buñ juddoo ba léegi fii ci ndakaaru wax dëgg yàlla waaw am na ci mbégte lool lool lool lool lool sax. gis noo dundee yoon bi ak euh, ñëw sëñ bi fii Dakar. ok jërëjëf sëñ Fallou euh, ni ñu ko dundee mooy sant yàlla bu baax a baax rek ca xam ni euh, la nekkoon dara jógu fi ni ma la ko mën a waxee tàmbale Serigne Touba ba ci sëñ Sidi Maxtaar mi nga xam ne moom la Serigne Mountakha Mbacké wutu li fi nekkoon dara dara dara jógu fi day yokk saa su nekk ndax maa ngi doon wax léegi ma ni su ma seetloo Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké pas-pas bi mu amoon ak yéene ji mu amoon mooy tàmbali Masalik bi mu jotee këyit ya liggéey ko jébbal ko Serigne Touba loolu la amoon pas-pas bi bisu tey bii amoon na pas-pas su fekke ko waaye yàlla gàntal Serigne Alaaji Baara Mbàkke Falilu pas-pas boobu amoon kenn ku ne xam na jomam ak ak njàmbaaram ak taxawaayam noonee la ko amee woon Serigne Touba Cheikh Sidi Moukhtar Mbacke bi mu ñëwee ba pose première pierre bi daal di jébbal liggéey bi Cheikh Ahmadou Mountakha mu feggoog Alaaji Mbàkke yu fay ak ki nga xamante ni moo di sëriñ Basiroom sëriñ Abdou Khadir Mbacke ak mbooleem comité bi nga xam ñoo ko séqoon moom itam def na ca lu mu war a def waaye tey jii nag jëriñam joojee Cheikh Amadou Mountakha Mbacke moo koy moo ko àggale ba ñu war koo jullee tey jii nag mu nekk gan ak Dakar yaakaar naa li ñu gis xel gën naa dal njortu gën naa rafet yaakaar gën naa dolee ko Serigne Touba ca xam ne la Serigne Touba ñaanoon ci suriyatan tayyibatan tu jaddidu nahji na Mustafa tahidu yoon yi am na bëri ñoo xam dañ doon xaar yoon euh, doomi sëñ Touba jeex wala leer sëñ Touba jeex rek lañ doon xaar waaye tey jii mel na ni lépp daa yokk lépp daa gën a yaatu lépp daa gën a kawe ndax ñee leer lañ woon waaye itam ñii ay leer lañ ci biir leeraat yoo xamante ni liggéey bi ni ñu ko sa euh, tawoo ni ñu fi ko yóbbu tey yaakaar naa ni mbég dina képp ko xam murit nga tey képp xam ni taalibe nga waaye tam tey na galas fàllu jullit ñëpp fi teew moo xam tarixa yëpp teew ñoo teeru Cheikh Ahmadou Mountakha te lii mooy li nga xamante ni mooy li sëñ Touba bëggoon Alaaji Maalik li la bëggoon Mame Baye Niass la bëggoon kilifa deen yëpp li leen bëggoon tey sëñ Mountakha réussir na ko yàlla nañ ci dugg ak jàmm génn ceeg jàmm ci barke Cheikhul Khadim te daal dakaar a ngi nii texe nañ ndax soo xoolee li may lay tënkal euh, ba sëñ bi doon samp euh, bantam ya ca euh, Gabon kenn ko doon fël kenn bëggaloon ko jumaa ja ca Njaareem bëggaloon ko jumaay Touba ak jumaa ji ko tey yaakaar naa ku dugg Dakar da nga xam ni Afrique euh, sagu nañ l'islam sagu na yoonu murid sagu na waaye tam tey jii tam mboolem ku nekk Dakar sagu nga ci sagam Serigne Touba bi sagam ñëpp la nag do murid di kase ñëpp la Serigne Fallou. Imam Sall di président de l'association des imams et arabisants de Touba. waaw Touba di mooy base bi xanaa day léegi ñu dugg ndakaaru rek comme dañ fi am daara alxuraan di fi jàngale alxuraan ak arab ak li nga xam ne mooy euh, njàngale Serigne Touba. waaw dafa nekk ñëw bu am solo bu am importance parce que euh, arrivé Serigne Touba ci Ndakaaru euh, njariñ rek lay jur njariñ bi muy jur mooy sama xel day dellu ci keroog bi Serigne Touba di wax naan isa zakartu zalikal mabita wa zalikal amira wa sabut taarat ilal jihaati bil arma nafsi walakin shabba anil ma keroog bi Serigne Touba naan saa yu ma fàttali ko guddi Ndakaaru métti mu métti sonal gu ko tubaab yi mu ne duma bëgg jël ay ngànnaay jàkkaarloo ak ñoom waaye yàlla mi nga xam ne mooy suñu borom aar ko ci lépp dimbale ko mu ànd ak yi ci juróom-ñetti at yu manqué dem dikkat ne yaa malikal mulki yaa man jalla an xawadi irham jamial wara yow yàlla jéggalan bi neef yëpp dañoo xamut loolu la ñuy wax naan sëriñ tubaab moo doon yonente bi alayhi salaatu salaam harfan bi harfin ndax yonente bi keroog bañ ko dóoree ay xeer ca taayif ba mu toog yàlla yobal jibril ne ko bu la neexee ñu boole ñaari montagne dane allahuma ixfir li xawmi fa inum laa yaalamuun yàlla jéggal leen ñoom dañoo xamul sëñ tubaa moom itam bi mu jugee ci géej gi loolu la wax tey sonal gi ko tubaab yi doon sonal masalikul jinaan mooy tontu dama ne jumaay tubaa jumaay njaram tontu la woon waaye masalikul jinaan tey mooy tontu bu mag bi mu delloowaan ñu ci sëriñ tubaa yàlla jox ko loo xam ne joxu ko kenn ndax li ma ne malaka ni dunya waxura somat maa indahu lixtaaruhu muhammad yàlla moom moom loo àdduna ak alaxira loolu dina ma delloosi ci tey bu doontoon ak Serigne Touba ñun duñu toog fii di ko nettali keroog bureau ba ca ndar wane na ko dem ci géej gi di kaat te tubaab yi képp ku ñu mësa a àndal 24 heures nga weddi yàlla baa ñu faat la mbokki jullit yi mbokki taalibe yi lii mooy liñ leen jëlalee woon ci arrivé Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir fii ci Ndakaaru muy waajal inauguration Massalikul Jinaan mu war a doon le 27 septembre 2019 ñuy sant bu baax mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ci liggéey bi depuis Touba ba ci fii ci Ndakaaru dul ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor xaadim rasool cay sëriñ Touba grand basam benn distance tubaab ya def nañ fal séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor xaadim rasool lii rekk doy na prudence bamba seen xañ la cadence sëñ bële ku ñu fa